bokk na ci turam lu sant maa leen ko diggoon ñëw ci champion bu mag boo xamante ne ni dañuy waxtaan ci làmb gindeeku moom ci làmb tàkkusaan bu def fi def fi wax kat Balla ku gis tey fa ma rek ne ci mbër bu ñu ñëw tey bu ñuy wax Balla Diouf Balla nuyu nañ la maa leen di fay mbokku lutte lutte di nuyu di leen dalal di trop ci ah di nuyu monde làmb ñëpp. Balla suñuy question bu njëkk tey li ñuy njëkk laaj Balla tey Balla lan la duggee ci làmb sa dëkk Medina la wala ci lan lu la dugal ci làmb. waa làmb li ma ci dugal moom mun naa wax ni passion la rek. parce que euh, aw ma mbokk buy bëree. aw ma entourage buy bëree mosuma woon am xarit buy bëree. donc euh, nekkoon ndaw nekk ndongu daara. ma jógee daara ñëw Medina. donc bu ma ñëwee Medina nekk ci affaire nawetaan yi daanaka man suma carrière football laa njëkk a def. football laa njëkk a def. ba jot naa football nawetaan ay quelques équipes. donc voilà ba ma paree ci football nag donc man football moo doon suma option. mais li ma dugal ci làmb sax mënuma la ko wax. dem naa ba benn moment. affaire guerrier affaire góor. moomu ci dugaloon. parce que boobu à l'époque ba ñuy dugg ñun ci làmb daanaka. millions yi daawoo ko dégg. wala millions yi tey à l'époque ñun nekk xale. <laughs> tant que bu doo rëy munoo espérer am ci milieu yi. ya yalla def ñu am passion bi nak <laughs> dem ba passion bi duggu ñu à travers les mbapat <laughs> dem Medina di am mbapat ñuy sétane ay mbapat à travers des mbapat nga ci gis say morom <laughs> ah ci nonu nga apa, pourquoi pas commencer entraîner virus la bo xamné nak bo ci xasse duggu commencer di ko entraîner commencer di dem ay mbapat ah donc day dem ba doon nak affaireu u défi nag ah ñun lu duggal moy mbapat bi diwoo ci man mbapat bee diwoo ci man ñuy wàll mbapat di bëre ba virus bi duggu ñu da naka lolu moñ duggal ci lamb nga nekkoon écurie Fass. Mhm. ñëpp xamee la fa. Mhm. Balla lan mooy lan moo la dindi Fass. waaw comme ni ma ko waxee rek euh, boo nekkee ci kër. Ah, tàggatu fa jàng fa lu bari màggee fa. Mhm. daanaka ci kilifa yi ngay bokk. ah yeb dunu nañ ko fas dem nak ba jamono xat ay malentendu at ay ñak dego euh, waral sama écrit fas euh di sante yalla bu baax nak parce que bama fa jógee ba léegi may ngi suma yoon may ngi continuer nek ci lama di sante yalla bu baaxa baax nan nga dundé sa jugu fas nan nga ko dundé wa mama wi metti won la parce que euh, bo xamul ben keur budul keur ki nga ki nga bok boo amul ambition jóge dem ci beneen kër amoo ambition wu tuxu yaakaaroo tuxu dem fenn xëy tuxu ñëw bett la mu ngi mel ni tey nga nekk sa kër ah, juddoo fa màggee fa ah, tekkee fa xëy rek ñu ñëw ne la kër gi dañ ko hypothèque da ngay génn kër gi donc choc boobu ngay am choc boobu laa amoon comme tout le monde euh, metti woon na trop mais tamit euh, nit da ngay nangu yàlla dogal nit da am destin destin la man nangu ko mhm. et puis tamit ci laa tourner la page mhm. fexe tamit xam ne àdduna liggéey rek a fi nekk mhm. di góorgóorlu lépp lu nga xam ne mun naa ci nekk rek da nga te mun ma jëriñ rek ma ciy nekk waaw diggante Fass ak écurie Ndakaaru ni mu mel léegi yow lan lan mooy sa ci loolu waaw Fass mi ngi ci biir Ndakaaru mhm. Ndakaaru mi ngi ci biir Fass mhm. donc boo xoolee à la base écurie bi benn la on mhm. parce que ñi nekkoon ci écurie bi ñoo dem créer beneen écurie tey bo àdduna doxee ba déggoo gis-gis yi bokkaat ambition yi bokk ah ñu ne waat dañuy booloowaat pour àndaat lu rafet la dañ koy encourager lu baax la choisir bi la Papa Sow choisir pour nga nekk entraîneur xaaroon nga ko wala li nga préparé wala bañ la ko waxee rek ko nangul waaw nekkul woon lu ma xaar nekkul lu ma préparé. <laughs> wax dëgg yàlla nekkul woon sax ci loo xam ne bokkoon na samay programme parce que amoon naa yeneen projet yoo xam ne. <laughs> période boobu ci laa doon concentré wu. <laughs> mais vu ba ma papa wooyee at waxtaan ju ñu waxtaan. gis vraiment. lim ma bëgg dénk ak yaakaar bi mu ci am te wóoluwu ci kenn ku dul man loolu tamit nekk lu rëy ci man nekk loo xam ne tamit vraiment lu ma rafetlu la et lu ma neex la parce que famille famille Papa ci boppam dama am lu ma warloo ak ñoom. <laughs> Euh, sama carrière ba muy commencé. <laughs> Ousa moo ci jàpp. teg ci loxo jëlee ma Médina indi ma parcelle looloo tax ma nekk mbër parce que su ma nekkoon Médina rek amaana tey mouvance lay doon rek après bu jàllee ma nekk ci leneen mais jëlee bi ma usaa jëlee Médina indi ma parcelle ma dëkk seen kër Papa Sow nekk xale nekk gul woon sax mbër di liggéey menuisier vraiment ñeme woon entraînement ñeme musculation dama doon topp usaa naan ko kii mu bëree papa bëree waxu woon dara donc dem ba yàlla def passion bi dem Ouza di bëree ñu suñu carrière ñuy dem ba nekk benn groupe dem ba passion bi dugg mhm. dem ba muy bëree mhm. vraiment mun naa wax ni dëkk naa seen kër mosuma fa am problème mhm. te lu ma mës a nekk jàpp nañ ci muy moom muy magam di yàlla def ba sama carrière déclenché ba ma war a delluwaat sanc Médina ah pour xàll nag wan ni Médina seen doom ñëw na vraiment xàll fa beneen yoon pour jeunes yi nga xam ne tey ñoo nekk Médina am yeneen possibilité parce que ñun amuñu woon mosuñu woon am dëkk Médina pur sang part ci Boy Kaïré lañ ko gëjoon am donc nag idée bi loolu la woon dem Médina samp vraiment yaatal yàlla def ci xéwal nag mu yaatu lool Médina ñëpp wuyu ñu def carrière bu honorable bàyyi bëre tey kooku nga xam ne moo jàppoon sama carrière ba may tàmbali tey rakkam soxla ah soxla jàppale parce que tey usa nekku fi euh, ma nga Europe ma tey Wa man m'a fi nek <laughs> dafa mel melni ma fi nekkal usa. Mhm. donc loolu non nak Papa saw delloo ma lolu mhm. mu nek luma ma neex ma jël ko nak mhm. avec beaucoup de philosophie jël ko vraiment avec beaucoup envie ba paré envie bari na parce que euh, responsabilité dafa fort nit wo la téléphone ne la li yaa ci doy lolu amul prix motax luma ci meun ak lu ci mënul ah waakirul sunu borom di ñaan yalla lepp li nga xamni tek ñing koy xaar ci man wala ñing koy xaar ci jàmbaar Wrestling Academy vraiment yalla ci loxo. Mm. waaw ci kaw loolu ñu gis si ngeen jël ngeen am ci seen poulain yow en tant que nga tàggat ko ba mu am ndam bu rëy ñu ku ñuy wax franc nan nga dundee loolu en tant que entraîneur. waaw d' abord li may wax rek mooy euh, euh, travail équipe la. Mm-hmm. parce que jàmbaar Wrestling Academy équipe moo fa nekk du Bala Diouf moo fa nekk. Mhm. Euh, coach su mi ngi fa di préparer xale yi ci physique. Mhm. bi mucc ayib. Mhm. coach Lato techniquement. macha allah mi ngi fa tamit lép li nga xam ne mooy jëm ci côté technique bëre. ah at ñun préparer tuuti as tuut bu ñu xam ñuy complétante. man mi fa nekk at euh, vraiment coach Laay Ñombor at Serigne Ndiaye ñi nga xam ne temps dañoo dañoo xaw a ñàkk jot. Mhm. vraiment ñu nekk di liggéey liggéeyu équipe. Mhm. liggéey boo xam ne on échange. Mhm. tey euh, li ma xam li Lato xam ak li su ko xam toujours dañuy jéem a xool. li adéquat at booy par rapport ak ñoom ci état de physique ak état de forme yu ñu nekk lan lañ ciy mottali. vraiment mu nekk travail équipe di ci félicité vraiment. équipe bu entraîneur jàmbaar wrestling académie yëpp vraiment liggéeyu équipe la ah Franc nag wax dëgg yàlla ah, ku xool combat bi mu bëree. xamni vraiment il était prêt. il était prêt à tout. et te loolu dafa am solo. ci mbeur mi wadjal bés. dem ci combat. nga paré loolu rek day dalal xel. te en plus loolu rek gàllaaj la. nga paré ba wàcc. ba xamni yow mi paré nga. déjà psychologiquement rek. ah am nga benen benen benen un plus. ah boo xam ne tey moo bi nga da am. tay franc un plus bobu la ñëw indi ci lamb ni ci sante yalla bu baax parce que. franc champion la. te nangoo liggéey. ah jàmbaar boo yëpp vraiment dañoo nangoo liggéey te làmb amul secret làmb amul secret làmb liggéey la c'est du travail il faut nga liggéey sérieusement pour prétendre mën a am carrière bi nga xam ne moo honorable tey nag booy ils ont compris ça vraiment nangoo liggéey ñun tamit ñu nangoo ànd ak ñoom a di am contentement bu baax ci ñëw bi ñu ñëw fii tey ci sa kër nga dalal ñu ñu waxtaan ci ci lu jëm ci ci làmb. waaw loolu bala ma cee dugg ma ma ma dellu santaat yàlla di julli ci sangu sang si di sant sama ñaari waajur yi fi ñu ñu nekk gënal leen di ñaan. ci réew mi ñu nekk ñu Sénégal yàlla def fi jàmm dolli fi jàmm ak sutura ak wér ak xéewal di ñaanal Parcelles Assainies gi ngeen ma fekk nga xam ne faa dëkk ku tudd ñu ko Parcelles nga koy ku bëgg Parcelles nga koy seet seet heure vingt six mu leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay di leen ñaanal di ñaanal écrit bi tax euh, ngeen gën fee ñëw ma bokk ci nekk fa papa ma jël nuyoo toog ci loxo président bi di ko wax Khadim Gadiaga ba ci gën a tuuti di nuyu suma monsieur le maire Moussa Sy di nuyu suma mag dama président di Manga 2 di ko siyaar di ko jox di siyaar sama njaboot sama soxna ak samay doom ak koñ bii ma dëkk di siyaar ñëpp jox kenn ku ne wàccuwaayam waaw. jërëjëf Papa kontaan nañu bu baax a baax ci nuyoo bi xam nañ ne tey bu ñu ñëw fii rek dinañ fi jëlee lu ñu lu ñu neex te ñu xam ne ci suñu kilifa lañ ñëw ci suñu papa lañ ñëw Papa question boo lay njëkk laaj kan mooy Ndiouga Dia. Ndiouga Dia tey benn waay la rek benn ndongo la bu bu bu bu bu yàlla bind rek waaw ah. nga juddoo. dëkk ñu fi wax di muxaddamu alaaji maani màggal Ndakaaru Faas su ma rek parce que mu defe ko Faas kooku daal mooy jubate waaw sa carrière yëpp nga defee ko Fass. waaw dëkk Fass la dem wala la dem dëkk Fass moo tax ma nekk écurie Fass. parce que fu ma dëkk rek bi état bi tam gën a gunge bi daal koy nëbbu. kon ginnaaw ma dama dëkk Fass. Fass rek laa mën a laa mën bokk. looloo waral ñu wax Ndiouga jëm Fass. loolu moom di tur boobu moo ma indi xëy na ci làmb ba yàlla dogal maas. gis nañ sa nekk Fass ba jaar jaar dëkk Fass yi. lan moo indi jógewu Fass Pape Ndiouga Dia lan moo lan moo ko dindi Fass mu indi coow lu bëri lan moo taxoon mu jógee Fass. xam nga man damay nitu jàmm di nitu ngor boo ci nekk bañkat parce que munoo munoo munoo munoo munoo nekk nitu ngor di nitu jàmm dafay ci fecc kóllëre ba pare te te te te am loo jom loolu mënul nekk. yooyu yëpp dama ko boole woon tënk ko équipe bi ko nekk famille aussi parce que am ñoo xam ne ñoo xam ne mën a sotti liggéey wax dëgg yàlla euh, wax dëgg yàlla béykat yi doole moo fi ñëpp quoi mais jamono yi may gën a faas euh, dama dem ba xam ne ànd bu yemee toog rek da ngay dem toog sama yaay ma ko wax ne ma ànd bu yemee toog mm-hmm. mm-hmm. da ngay dem nga toog. da ngay dem nga toog. da ngay dem nga toog. moo waral a dem toog. waaw. loolu taxoon nga jugee nga jugee nga jugee Fass. waaw ba nga jugee Fass fan nga nekk. ba jugee Fass dama ñëw rek uh-huh. ah dégg ay rumeur bon ma xam ne Fass famille uh-huh. naa fa mais bu tey jàmm ji mooy continuer. Uh-huh. bu ma déggee ci ñoom jàmm danaa dem bu ma déggee ci leneen Ah, xam naa ak ñun yaa ngi doon sëgg bëri ñoom man takk ngeen bëri ñoom yàlla loolu toog bi fu la nekkoon di champion bu mag yàlla na yàlla yërëm ko yàlla dëkk àjjana maa ngi koy ñaanal yàlla dëkk àjjana doon bañ ko aussi trop champion il faut ne kenn quitté ko parce que moom tam ah, borom borom la daal ci gàttal hmm. ma xool ne toog bi du bëri waa Fass man bu mu bëri waa Fass c'est de quelqu'un la bu toog ba xam ne toog c'est de quelqu'un ma dem ànd ak moom comme ni ma ànd woon ak suma mbéy mi loolu làmb du def tool yi ba xam ne war na maa yëngu ci làmb dama dem moom bootu ci ginnaaw waaw. ñu gis tey Fass dem ba lëkkaloo écurie Ndakaaru loolu yow lan nga ciy jàngat. waaw ci bu mel ni Fass tey ci dayoo bi ñu fa déggoon ndam indi li Fass gën a teg lan la Fass dem bay wuti. wa ci boo ko jàppee wàll yàlla dem dugalante beneen équipe nan nga jàpbatee loolu. mais kooku da koy da ngay da ngay delloo sa bopp yi aussi. <laughs> mais pourquoi écrire Dakar aussi ne léegi face. parce que Dakar aussi c'est quelqu'un. Mm-hmm. parce que dañ ku dem ba premier roi de Sarène yaa yaa ko njëkk a entamé. Mm-hmm. ba boo ko entamé yaay deuxième roi de Sarène. Mm-hmm. yow grand écurie écurie Dakar moom dafa jeexal wax Dakar. Dakar moom dëkk na lépp. kon soo demee bay mais Dakar moo ëmb Fass du dëkk Fass kay moo ëmb jug dem fekk Dakar waaye bu Dakar lu ñuy fekk si Fass rek kooku man bu doon man du ma ko def ndax ndax la équipe du ma fekki gox man maay Dakar man kay ku ñëw maa lay dal mais nag du ma dem di am euh, euh, réew du fekk quartier est ce ah. que ñun Dakar est ce que ñun Dakar ñu um ñu yëkkati jóge est ce que Dakar nag tuddee fi nekk rek mais Dakar amatul am amatul li ñuy wax am. ñu doon mais foo fi gis trop foo fi gis nag trop fu toog. foo fi gis trop fu toog. comme fan structure la ñu wax dossier su nekk buy def dañuy dossier def ci poche mais mais Fass te wax Fass te wax Fass tey. voilà. te li wax Fass. est ce que Fass bu woon yow Fass bi nga bi nga xam est ce que Fass boobu moo nekk toujours face la non face la nu mu koy face toujours face la na na na la tax naan face nag ndax loolu nga may laaj waaye nag toujours face la te non face face la. la wax face est-ce que mën na. ah la tax ñu la wax face est-ce que mën na. waaw mën nga so parce que champion bu toll nii Gris Bordeaux fu mu nekk face ak. ah mais Gris Gris la daan bi. waaw mais moom Gris daan bi aussi champion la de. mu ngi rajo de champion la. non mais Gris daan bi te dañ ko. moom Gris Gris daan bi. waaw mais mais mais combat yi ñu am yëpp du si jëlee ndam. waaw mais aussi aussi aussi de su ko daanee aussi xam nga bëri moom ñaari fi nekk. ñett fi nekk ñetti làmb moo am bëri daan daanu ak match bi. est-ce que Fass kilifa yi tax ñu doon wax kilifa gis ndax ndax ndax dégg moo la ndax ndax ndax ñu ngi déggal kilifa yi mais kilifa foo dem na fa ndax loolu moom lañ war a laajte. mais mais kilifa yi ne la fa fu mu safar ngay nekk ah Thierno Dramé na fa Khalifa Diagne Fall Mbaye Gueye malgré dafa feebar mais xalaatam toujours war nañ ko mën a dundee parce que nit ki euh, bu fekkee bu wéetee nga goree su wéetee nga goree bu wéetu ko da ngaa war a goree man damaa dem nit ki bu fekkee dafa da ngaa war a wéet goree wéetu ko goree. parce que damay gis damay gis sorti souvent ñu ay Gris Bordeaux di def wala ñu ne Gris Bordeaux am na combat entraîné waa waa Fass comme ay wala mu jékki-jékki def benn sorti si Moustapha Gueye. mais Moustapha Gueye lii wala diw moo ma def lii diw moo a. yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp xeetu seytaan la mais Gueye Godo mënut a nekk. mais tey sa kër fii sa kër fii. waaw yaakaaruma tey sa doom génn di wax naka su dul noonu te yow tey tey tey duñ ko duñ ko njabaayaat trois ans. loolu moom du ma ko du ma ko ànd ak kenn. loolu loolu loolu moo am face. mais nag Gueye Godo mënut a am na benn combat face te entraîné wu face loolu loolu loolu waxu waxu nit ñi la rek mais. ngir combat bu mu entamé mu war fàttali ko entraîné.